alquran daf ci am benn façon pirine traduction boo xam ni moom rek la ko yàlla baaxee ci jamono ci li ma gis ndax dañuy firi alquran di wax naan xaala wax na allahu yàlla nangam nangam di firi baat yi di firi maanaa yi moom nag benn baatu alquran lay jël tas araf yi وبسيفه ما كان حقا علينا نصر المؤمنين واو ويلا كاف جا ويلا ليف با ويلا نون أن ويلا لولو لو بيس لا شيخ القديم رضي الله عنه كي سما غيس غيس بو غات اك بو نياك سولو كي بو jël seeni turi maam seeni turi eero tudde ko réew yooyu te loolu feeñ na ci suñu capital yi Cheikhu Xadim wane la ci dëkk yi mu sañ nga gis daaru salaam gis daaru nàngam te benn bu ci nekk turu yàlla la benn bu ci nekk mu ngay wone ci li nga xam ni itam moo di juróom-ñeent fukki tur yi ak juróom-ñeent yi nga xam ne attribut la yu jóge ci borom bi subhanahu wa taala daarul Kaffour daaru salaam loolu itam waxuma moo jëkk africanisé waaye moo jëkk islamisé ay quartier islamisé ay village te loola bokk na ci forme bi nga xam ni forme jihad la woon pour moom tey jii fépp foo jaar fu cadd masaana nekk tey jii boo fa demee ñu ngay julli ñu ngay woor alaji fa la ëpp ajrati fa la ëpp waaye itam zikkar yi fa la ëpp waaye itam xasaay du sëñ subak ngoon ak daaray kamil yi ak njàng ma kon loolu itam ci méthodologie la bokk boo xam ne xëy na saxaaba yi réussiruñu woon loolu trop ci milieu yu ni mel ci ahmad bamba radiallahu anhu moo tax yàlla xam naa ni yàlla looloo tax yónneewuñu ay yonent ñu ndax am ñu doon waajal ñoo xam ne garaatu bi tur wa lañ dul yore waaye liggéey yonent yi dañ ci egg foo xam ni ne maasha allahu mooy tax lislaam nekk fi sax fi te cheikh ahmadou bamba radiallahu anhu gàcce ngaalaaba beneen bi ci des sëñ lay rey xam naa ni waxtu waa ngi bëgg jot moo di ne lislaam toll na tey ci mond bi suñu mbokku arab yépp échec nañu ndax message mënul jàll yàlla baaxe tariqatul murid bokk ci tariqa yi nga xam ni gën nañoo jox espoir l'islam pour mu tas ci àdduna si ndax l'islam li ko lal moo di yaa ayuha alladina amanu l'islam li ko lal mooy lazina amanu wa amilu saalihaati ngëm ak liggéey te devise Cheikh Ahmad bam ba muy tëral ngëm ak liggéey booba yaakaar naa ni bay tool rek a fi nekkoon kenn xalaatul beneen liggéey bu dul booba ndekete yoo liggéey bi mu doon bëgg dëkkmal mooy bu ñu demee ba àdduna jafe parce que boo àdduna jafe foofa la liggéey di nekk wurus tey jii crise yi nga xam ni yàlla tombel na ko ci pays africain yi ñu def ni musiba la du musiba ndax moo waral suñu doomu réew yi génn te doomu réew yi génn ànd ak yeneen doomu réew senegal rek moo am doomu réew yoo xam ni yóbbaale nañu seen lislaam yóbbaale seen tariqa loolu muy liggéey boo xam ni Cheikh Ahmad Bamba yàlla ko ko baaxe ba tey jii témoignage yi am ci bitim réew dañuy naan daal ku fi ñëw benn nga nekk fi ba mu yàgg fàtte sa lislaam waaye daal waa Sénégal rek daal gis nañu ñoom ku fi ñëw waxuma julli gi waxuma woor geeg tabaski ji loolu moom tubaab yi ñoo ko témoignel diaspora bi waaye gis nañ ne dañu indaale sax seen tariqa muy tijaan ba boo demee tey Europe mu nga ca zawiya muy murit ba kër Sëriñ Tuubaa yaa ngi ne gàññ waaye itam seede nañ ne xasaayit yaa ngi jib foo xam ni benn tubaab foogee ko foofu ndax ku ñëwoon sam réew na la du fi jibe ñu dem ba mujj gi nga ñibbi sam réew xasaayit yi fekk si la foofule ma ni loolu itam yàllaa ko fayee Sëriñ Tuubaa radiyallaahu anhu ndax lii mu woyoon ci yonent bi bind ko ci borom bi yàlla du ko yemale ci benn continent foog mu jàll ndax taggul boppam taggul ay maamam taggul ay taalibeem yàlla rek lay tàgg ak yonent bi te nag lislaam yàlla ko def muy lu universel te sëñ Tuubaa bokk na ci ñu ko war a universaliser ci manière am manière bi bokk na ci ay taalibeem ci la waaye taalibe yi fu ñu dem xasaayit yi mënuñu ko bàyyi ginnaaw moom foog mu dem mu neex leen mu naq di leen كان سين توبا يتبير فوق منكف ومنخ منقدر نخ القران نوني والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا يلا يعني انا كنت تي مان ما وان لا ديارنا كو سين توبا نك لي مو ديف تي ديغنتي مك بروم كين امول خيل نيار نسون ما تي فوق يلا فاي كو لي نك لي نيوي دي يوم مو اوب دولي فوف لي دانك افان بروميير لا تي جينيراسيون يلا نكو يلا فايل اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه حبي وشكري لمن كلي بثارة لو ندم دون ذوت نندسر ساره